mais euh, am nañu jàpp ne c'est pas la bonne façon euh, d'aider la la la la la presse ay loo chaque fois Ablaye Wade defoon na ko fi amnistie fiscale pour les entreprises de de de presse euh, Macky Sall déclaré na ko. je je je suis euh, je suis totalement d'accord. mais c'est pas la bonne manière. waaye xam lu tax. ah. j'ai aussi aussi gestionnaire d'entreprise. Mhm. j'ai fait de de très grandes entreprises j'ai fait la SORES de Ndiouga Kébé. et j'ai fait les conserveries du Sénégal de Matar Ndiaye yàlla na ko yàlla xaare aljana pendant vingt et un ans la plus grande société de pêche d'exportation douze milliards de chiffre d'affaires mille cinq cents employés par jour et j'étais présent sur le marché international avec des produits donc xam naa li may wax problème mu presse bi Souleymane Niang de TFM Mantan Guirassy ministre de l'information m'entend nous avons eu des achoppements sur deux questions ñaari question moo tax jubóowuñu ñaar benn bi ñoom la bugguñu ko dindi bi benn bi man la parce que li ma leen proposé dañ ko nanguwul. muy dépénalisation bi. dépénalisation bi parce que moi je trouve que diffamer un citoyen un responsable par voie de presse c'est une situation aggravante moo tax maa ngi gërëm aussi ci loolu dama ci jàng lu bari ci seen benn confrère defe naa ne seen confrère la mais en tout cas un bon pénaliste muy Daouda Daouda Mine mhm. que j'écoute tous les jours excellent Daouda ma ne waxtaan ma ne waxtaan ak moom di biig woo naa ko à deux heures demi demie du matin ngonte moon yow bi ngay nelaw wala keneen di nelaw man maa ngi wax ak ñoom ngonte moon dinaa wax lu ñu xamul am na loo xam ne ma ko wax nañ ma ko ci benn parlementaire bu wax c'est c'est Babacar Gaye et je connais la pertinence de ses analyses man ngeen ba a bokk point de vue mais li muy wax mën nga ko dindi mais doo ko doo doo doo ko loo parce que li muy wax xam na ko donc ce qu'il faut aujourd'hui man j'avais proposé à ce que les entreprises de presse qui n'appartiennent pas à des journalistes dans la constitution du capital ñu trouver ci un pour pourcentage pour des lii de mooy idée bi ma am sur la pharma l'industrie pharmaceutique industrie pharmaceutique man nga bari xaalis nekk directeur général wala neexee mais mënuloo yore production doo yore fabrication doo yore qualité et quand euh, benn organe de presse boo xam ne bii homme d'affaires moo ko moom la mu ciy liggéey pour boppam rek la mais bu fekkee ne ñi nga xam ne dañ ciy indi seen apport culturel et intellectuel parce que parfois c'est pas seulement l'information mais ce sont les analyses faites les éditos qui sont des propriétés intellectuelles yu journalistes yi mais ñu def ko ci benn cadre benn benn benn organisation moi je pense que la solution aujourd'hui si nous voulons une démocratie il faut trouver dans le code de la presse trouver une, une, une des chapitres économiques pour la presse qu'est-ce qu'il faut pour que l'entreprise de presse puisse travailler gagner de l'argent et supporter ses charges may mun a yow mii ñaata yoon laa xuloo yow noppalakul ne la parce que li ngay def du sotti wala déet parce que da nga bëgg a def l'administration bëgg def la comptabilité uti ay ay ay ay ay ay ay comment ay publicité ba pare bëgg diriger ay émission ñaata yoon baal maa xam ma koy waxee nii ah mais je te wax naa la ne demal nga uti keneen koo def dem naa beneen la def sa doom na dugg ci loolu parce que l'entreprise économique de la presse est très très compliquée surtout fu ñu toll ensuite légiférer sur ceux qui sont en marge de la presse et même ceux qui la presse parce que il n'est pas donné du waruñu may kenn ku nekk ci biir presse bi mu war a jóg di wax information moo tax nga déggee information yi ngay dégg catastrophique ak école yi ñu koy jàngale waxuma ne école yi baaxuñu de am na de grandes écoles yu fi créées et ça a été très bien mais léegi y a l'école de mon village là à Doun Baba Dieye l'école des journalistes ak l'école des infirmiers d'État am na foofu ante amuñu dispensaire am école des infirmiers d'État ñooy ñooy créé tam do ñu ñuy dugg fii di laaj ay place ñu jox leen lu ñu attanul la presse est trop trop sérieuse pour qu'on l'abandonne la la presse est tellement importante qu'il faut y apporter pour pouvoir génn ko économiquement et loolu c'est l'État et principalement sur l'argent des contribuables bi jëm ci RTS am na ci droit parce que RTS rek la état bi am pour mu defal ko communication parce que yow mën la ci forcer mais mën na forcer RTS mais bu defee bu investir ci RTS ba pare li mu war a def mooy en cinq ans mu dégager chaque at vingt à vingt cinq pour cent sur la le capital publicitaire bi am dans le monde de la presse affecté ko au privé mais aux entreprises de privé presse aussi sérieuses et sélectionnées parce que loolu lay jariñ donc il faut un, un projet économique